أذكر المريد وأرتجي بفضله المسيد سألته أن يتيف المريد من جوده ما أخجز العديد من العلوم ومن الأرساق فلا ومن معاصينه الأخلاق أسأله بالله ورحمن وبمحامن وبالمنان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله wa xeyri xalqillah wa ala wa ashaabihi wa man wala wa baad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu ñu mën di nekk ñu ngi leen ñu nuyu di leen ziyaara waaye di leen baalu xaq ci weeru mag wi ñu ne muy shahru ramadan mubarak di leen baalu xaq di leen baalu di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole baal teewee ko ay déwén yu bëri yàlla nangul ñu koor gi nangul ni jaamu yàlla yi ak lépp lu ñu ci dundalee yaara bi gannaaw buñ jotee ndigal ci xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass ataala baqaahu yal na yàlla guddal fanam te may ko wér yàggal ko ci kanam njaboot gi mu yàgg ñoo tette gannaaw buñ jotee xalaat ak ndigal moolaaye mudirul mahad Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass nga xam ne moo xalaat bés bii gannaaw sin waajur bu mu ko daan fugloo di koy def mu jox ñu ci ndigal yeesal ñu ko mu koy ñaanal yàlla moom tamit yàlla guddal fanam te may ko wér di ñaanal tamit imaam al akbar moolaaye cheikh imaam seydi euh, sey cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé ñu koy ziara di koy ñaanal yàlla moom tamit gudd fan ànd ak wér euh, ku dégg annonce bi di nga fàttaliku lu bëri muy guddig laylatul xadri bi nga xam ne moolaaye cheikh Mahmoud Hadi maa ko baaxoon di def euh, ren nag dafa am ay changement yu bëri yoo xam ne am na ci formule yi nga xam ne moom la état tëral pour bañ a ñu bañ a dajaloo bañ booloo loolu moom formule yooyu du am ndax ku xalaat leelatul xadd rek di nga xalaat buntu kër Cheikh Mamadou Hadi nu mu den bëree nit buñ xëyee suba dañuy toog di jàng fajar ba tàkkusaan di wàcce ay kaamil dañ koy delee sax ca bu commencement koor la ñu commencé di jàng ay kaamil ba bési leelatul xadd yi ñu toog ci buntu kër Cheikh Mamadou Hadi wàccee fay kaamil bu guddee jotee oo imaam mu ñëw xatmal nañu ko loolu nag du am ren waaye kaamil yi moom dafay continuer comme nit ñi ni ñuy continuer di julli continuer di jaamu yàlla ñun tamit noonu lañuy ñu di jàng kaamil yi ñu ngi sant mboolem sëriñ daar yi nga xam ne ñu ngi toog seen i kër ak mboolem muqaddam yi kenn ku nekk yaa ngi toog sa kër di jàng li nga xam ne moom nga doon jàng dajaloo bi du am nag ren waaye leelatul xadri moom dina am la shakka ndax kóllëre goo xam ne waajur yi ñoo ko jàppoon jàpp ko te yàlla tax maa kaana lillahi daamoo tasal wa maa lam yakun li gayrillahi qataan fasal lépp luñ sos te yàlla tax loolu dafay continuer lii Cheikh Mahamad Hadi bu mu koy def yàlla rek moo tax mu def ko jëlee ko ci baayam moolaaya Cheikh l'Islam Haaj Ibrahim Niass jëlee ko ci maamam moolaaya Haaj Abdallahi ba Seydina Muhammad sunna su rafet te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ne man sunna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama képp ku sunna sunna su rafet sunna soosu yàlla du dañ di la koy fay yool ba keroog bés penc lii sunna su rafet la soo xam ne ne daf ko moo gën neenal ko te ku nekk xam ne ne jamono jii ñu ci jamono covid 19 bi nga xam ne euh, limbe na àddina bi yëpp muy coronavirus bi xam ne jàng alxuraan moom rek moo ko fi mën a jëlee ndax alxuraan lépp lu mu jaar rek loolu dafay màgg loolu dafay barke te alxuraan mooy lu sell loo xam ne lépp lu mu jàll rek dafay sell lu tax jibril gën mboolem malaaka yi lu ñu wàccee ci moom alxuraan la lu tax yonent bi sallallahu gën mboolem yonent yi lu ñu wàccee ci moom alxuraan la lu tax weeru koor gën gën mboolem weer yi lu ñu wàccee ci moom alxuraan la waaye lu tax tamit guddig laylatul xadri gën mboolem guddi yi luñ ci wàccee alxuraan la ban wàcce googu ñu wàccee ci alxuraan ñu fas yéene jàng ci kaamil yu limu yu takku ñaanal Sénégal ñaanal président ñaanal état bi waaye ñaanal mboolem kilifa yi diine yi waaye ñaanal mboolem àddina bi ñaanal Amérique ñaanal mboolem Europe mboolem continent yi ñu ñaanal leen jëf yi jeex ndax xay fekk yaa ngi koy dégg rek mucc goo ci loolu la sin maam doon wax ban fekk ñu ngi koy dégg rek kenn muccagut ñu ngi ñaan nag ci barke kaamil yi nga xam ne fas yéene nañ koo jàng fii ba keroog bési leelatul xadri bi ñu fas yéene koo xat xatmu ci bës ba incha allah dina respecté mesures yi nga xam ne moom la état jël pour bañ a dajaloo duñ dajaloo dinañ def distance bu boobaa dinañ toog kom niñ toogee nii ak ñenn ci njaboot gi ba ñu toog xat mu ko ñaanal àddina bi pour balaa bii nga xam ne wàcc na fi ci àddina bi yëpp yàlla jeexal ko fi ñu ngi jaale nag ñi nga xam ne ñoo ci gaañule ñu ngi leen ñuy jaale bu baax waaye tamit di massaw ñi nga xam ne ñoo feebar di ñaan yàlla yàlla saafara leen ñi ngi fàttali na sëriñ daara yi incha allah kenn ku nekk na nga toog sa daara bul bouger nga yónnee ci numéro bi nga xam ne moom lañuy wax li nga jàng ci kaamil muy 77 999 99 30 nga yónnee ci kaamil yi nga xam ne moom nga jàng ci bésu leeratul xadri bi lépp loo xam ne ne ba sëñ aadi baaxoon na ko di koy defal teranga sëriñ sëriñ daara yi dara du ci wàññeeku kenn ku nekk fa nga nekk dinañ la seet si jox la teranga ji nga xam ne moom la sëñ aadi baaxoon di def kum dalagul nag ñu ngi ñaan yàlla bu mu la dal yàlla na ko fi yàlla génnee dinaa profité tamit ci occasion bi gërëm presse bi di la ñuy ñaanal yàlla di ndax démb la woon seen euh, journée journée presse mondial ñu ngi leen ciy gërëm dina ñaanal yàlla yàlla defar la leen tawfiq ak taysiir ba lépp lu ngeen bëgg a jàllale ngeen jàllale ko ci anam ak tal ak wér bi jaay Seydou Diop sallallahu alayhi ngeen suivre incha allah mbir mi dina nekk online ci site yi nga xam ne moo aju ci pays bi ak site yu aju ci pays bi yëpp dinañ ko jàllale àllarba le 20 mai incha allah 21 heures képp koo xam ne ne jàpp nga presse en bi rek di nga seetaan. Euh, incha allah leelatul xadr bi fu nga nekk ku nekk rek fu nga nekk nga toog fa bu kenn déplacé wu bu benn sëriñ daara déplacé wu bu benn muqaddam déplacé wu ñu def ñu respecté li nga xam ne moom la état bi santaane pour lan pour moytu pour lan pour fagaru pour moytu feebar bi nga xam ne euh, dafay wàlle ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla musal ñu ci yàlla na ko fi yàlla jeexal allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim